ñëpp gis nañ jamono ji euh, Sénégal dañu am mbas adduna bi yëpp mbas mi dafa law adduna bi yëpp ba Sénégal loolu dafa indi ay problème yu mag loolu moo tax président de la république dafa ne mbay dafa bokk ci li ñu war a sukkandiku pour que bu yàlla defee mbas mi bu jàllee Sénégal ñu am lu ñuy lekk loolu moo tax daf ñu santoon ñu def programme agricole bu ñu ko defee mu da nangu ni yokk suñu budget bu baax a baax maanaam yokk na ko vingt milliards 40 milliards la nekkoon daaw mu indi ko 60 milliards yokk na ci 20 milliards loolu pour ñu mun a jënd jiw engrais bu bare bare jëblal jëbal ko monde rural te aussi ci njëg bu maanaam euh, dafa dafa neew parce que dañoo wàññi njeg mi yokk subvention yi euh, bu loolu weesoo dañu xamoon ne euh, dañu béy ceeb bu bari bale fleuve Sénégal ak anam bi te gëm nañ ni reen xëy na liggéeykat yi xëy na duñu dem fofu loolu moo mu yëkkati aussi milliards ak ñaari téeméeri millions mun nañu jënd leen matériel de récolte maanaam ay moissonneuse ngeen fexe ba récolte yi ñu mun ko def ci alam bu normal loolu weesoo xam ngeen ni picc yi dañu sonal wa vallée du wa waa waalo ak euh, dagal euh, ba ba Podor loolu aussi président de la république daf ma yëkkati euh, dafa yëkkati un milliard pour que Sénégal ñu am moyen de traitement aérien ay ay jumtuwaay ñu melni avion pour ñu mëna ko traiter mais bala lolu aussi daf ma sante ñu waxtaan ak Mauritanie ba gëm nañ ni problème bobu dinañ ko régler ci ci ci ci fan yu euh bu lolu weesoo aussi mu légui il faut que comme que am nañu programme bu am doole bi matériel bi ñu waxone ne dañ koy jaay manam dañ ko don subventionné mais il faut que producteur bi mu indi dara néna pour xalé yi ak jigen yi ñi nekk ci faro yi ak ci vallée yi ñu fexe ba vraiment ñu may leen matériel bi may matériel bi boko ko xaymaa aussi upp na maanaam 4 milliards donc matériel bi loolu moo tax tey dañu ñëw fi ak euh, manam suñu mandataire bi ñu yóbbu matériel bi fii ba taw bi commencé